Mm-hmm. waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp boobu ba léegi maa ngi def vidéo di saaga Wally Seck xam nga may wax côté boobu maa ngi jégaluwaat bu baax a baax ndax man Wally defuma loo xamante jiwu ma tamit loo xam ne dama koy saaga juumoon naa saaga naa la ndey am naa droit nag far fu ma neex mais tey ji awma droit tamit di la saaga waaw ndax man jiwoo ma lool ndax man mosoo maa romb si mbedd di ma wax lu bon te gis nañ teraanga yi ngay def si dëkk bi peut daa am yu ma ci dugaloon may saaga ndey mooy lool mais maa ngi jégalu waat baax tuuma kan moo la ci dugaloon fii man maa jàppale yow xama xama ma mën a tudd tur déedéet eh, eh, eh, lu tax dañuy wax na da ngay tudd tur waa léegi da ngay tudd tur kon nen waaw léegi peut-être man bugguma woon tudd tur sax tudd tur nag man dinaa tudd tur mais woon tudd tur man peut-être Matar moo ma ci dugal man Matar moo ma ci dugal Sidi dugaluma ci ki den nag moom dugaluma ci keneen ak keneen dugaluma ci man moom ma ci dugal nay leer man loolu laa bëggoon pour waa Sénégal yëpp xam ko maa ngi jéggaluwaat bu baax nag peut-être jox na ma xaalis ne ma wax waxal lii ak lii mooy loolu ma daal di def vidéo yi mais Sidi defuma loo xamante sii mooy loolu Sidi dugaluma si dara lu bon waxuma saagaal waaji ñu ko jege tamit waxuñu ma saagaal waaji peut ma taar moom ma dugal si lool maa ngi jéggaluwaat nag si côté. mais portable yi nga yor nag ay nan la ñu ko jox. non téléphone bi Sidi moom moo ko jël yéene moo ko si ngir yàlla mu defal moo ko suma diggante man ak moom mu musul waa léegi da ngay tur tur maa lay déglu être man bugguma woon tudd tur sax li nga léegi garaawul man dinaa tudd mais bugguma woon tudd sax man peut-être Matar suba teel moo ma ci dugal man Matar moo ma ci dugal siidi dugalu ma ci ki dend ak moom dugalu ma ci keneen ak keneen dugalu ma ci man mataar moo ma ci dugal nay leer man loolu laa bëggoon pour waa Sénégal yëpp xam ko maa ngi jéggaluwaat bu baax nag peut-être jox na ma xaalis ne ma waxal lii ak lii mooy loolu ma daal di def vidéo yi mais Sidy defuma loo xamante si mooy loolu Sidy dugaluma si dara lu bon waxuma saagaal waali ñoo ko jege tamit waxuñu ma saagaal waali peut-être Matar moo ma dugal si loolu maa ngi jéggaluwaat nag si côté. mais portable yi nga yor nag ay nan la ko jox. non téléphone bi Sidy moom moo ko jël yéene ma ko si ngir yàlla mu defal ma ko suma diggante man ak moom mu sutta wa taxaw man man ak moom sa duñ déggante téléphone mu naan ma waxal lii waali Sidi yàlla def na ne boo xaree xolam si et certain waali nga ciy fekk na la loolu xam kon boog peut-être ñee juum naa maa ngi jégaluwaat bu baax waali maa ngi man liw maa ngi lay jégalu bu baax a baax a baax nga baal ma àq bu baax a baax aduna ñëbit fan su waali yeeg ñëpp ñëpp a ñoom El Pocho El Pocho boobu ba mu may woo maa ngi jégaluwaat bu baax El ndax am na fu ñu jaar man ak yow ay ñoom Salimata Gueye ay ñoom laay la chef maa ngi jégal di tuub bu baax a baax a baax a baax. ñii saaga waale te jàppaguñ ne loolu di wax pour message. pour ñu dama leen wax nag gars yi yéen saaga waale non du cadre def sax mais ñii saaga waale nañ ko bàyyi peut-être na nañoo ah waaw ñii saaga waale nañ ko bàyyi ndax nekkul loo xam ne lu rafet la. ma taar man ma taar suba teel. waaw moo ma dugal si lii la. nu ma ci dugal nga leer. moom moo ma jox xaalis. waaw a ne ma saagaal waali sekk. Mm-hmm. moom moo ma ko jox ma taar suba teel. lépp na leer non non toogal. fi nga toog baax na toogal. jotoon fii toogal toogal nii. na ñëw na ñëw. yow Wally Seck dañu yaakaar ne yéen Wally Seck moom. koo xam ne doomu réew mi def lu baax ngeen toog ko naan ay yow bu ko jógee Fuuta xaw ma Tamba xaw ma Louga boo ñëwee Dakar bu la def lu neex ànd ak lu neex mais baal doomu jaamur ji ngay saaga mama jaaga demul dikkul. sëy li mu war a sëy ba am lu mel ni jur fi loo xam ne